wala tata yi ñu ngi leen daan yóbbu tey gis ñu moo tax nag gis nga leen presque huit ñoom ñoo ngi nii tey am ay jafe-jafe mu nekk nag loo xam ne nii doy waar non seulement day impacter éducation bi mais dina impacter ñeneen ñi nga xam ne itam ñu ngi dem doxi seen i soxla moo xam ne jëm marché moo xam ne jëm hôpital mais ñi nga xam ne a victime kon lii nag nekk nii jafe-jafe amee entre les transporteurs ak peut état bi